wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci ndigalal xalif général des Tidianes sëriñ Babacar Sy Mansour ak mbooleem famik maam Cheikh Seydil Haaji Malick Sy jiitalug sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Sy Mansour ak rakkam waa daara sëriñ Mansour Sy borom daara yi te ki nekk ci bopp ba di El Haaji Maodo Malick Sow am mbégte ak kontante di leen yëgal journée daara sëriñ Mansour Sy borom daara yi muy septième édition bi tombeek samedi le 6 janvier 2024 à Tivaouane ci tàmbalee 9h à 14h programme bi nii lay tëddee ñu xëyee dinañ def jongante alquranul karim si diggante xale yi nga xamante ne ñoo nekk si biir daara ji bu ñu ci noppee dinañ jàllale kàddu kilifa yi ak kàddu autorité yi daal di suñuy gan ñu ci paree dinañ waxtaanee thème bu am solo mu dawrul xadratil malikiyati fi l istiqraaril ijtimaai al cheikh Mouhamadounil Mansour Sy namuuzajan rôle de la de la xadra malikiya dans la construction de la stabilité sociale maanaam cër bi nga xamante ni xadratul malikiya am ko ci ñuy tabax société bu am dal ñu mën ci jël comme Serigne Mansour Sy comme exemple di koy waxtaanee mu di a Cheikh Ahmad Tidiane Sakho di kenn si ñi daara di produire waaye di boroom xam-xam ñu si noppee jox kàddu gi Serigne Mame Malick Sy Mansour mu saafante ak njaboot gi bis bi nag ñu ngi si rendre hommage soxna ay Aïssatou Sy Mansour moom mi nga xamante ni moo njëkk a fekk way juróom Serigne Mansour Sy boroom daara yi ak El Hadji Dame Diop Mansour doonoon jàmbaar lool yal na leen yàlla yërëm 2024 à Tivaouane quartier Fougni ñu ngi sàkku ñëpp seen teewaay xudurukum sharafun lana lima yuhyikum